loolu am na solo trop euh, tey nag ñu fas yéene duggaat ci beneen ponk boo xamante ni bëgg naa ñu gën ci xuus ndax bii paase dañ ko brosser rek muy wàllub làmb tey mbër mi nga xamante ni jàpp nga ni bëgg na dugg ci làmb avant muy dugg ci làmb euh, mën nga ko samp boo koy samp ci yan sart nga koy teg ak nan nga koy samp sampee ak samp bi ñaata lay doon ci wàllu koom-koom lu mu lay fay ba ngeen mën a jëflante waaw comme mbër mi bëgg dugg ci làmb bëgguñu samp ko samp samp mbër ay façon la waaw ay façon la ngay am ay komba yaa ngi dégg di jël ay mbapat yaa ngi dégg wala ñu samp la nga jël plus de sept ans yoo xamante ni da koy jël dañ la koy dégg ngay jël rek waaw te samp yi ñu koy sampe ay nag la samp mbër nag la bu dee kuy door a dugg ci làmb bëy bëy sikat yi lañ lay sampee bu dee kuy door a dugg ci làmb mais bu dee comme mbër ni ku yàgg a nekk ci làmb kooku nag lañ koy sampalee waaw te buñ la samp buñ ko sampalee sept yoo xam bu fekkee ki nga xam dafa bëgg moom sept yëpp mu di ko jël ñu di ko dégg kooku dañ koy samp sept ans yu yëpp ci kàttanu yàlla day jël ay làmb mais buñ ko sampee euh, dina am combat yoo xam ne tojal lay doon at mu nekk dinañ ko si daan benn yoon. waaw at mu nekk dañ ko si daan benn yoon ba sept ans yi mat. Oh, kon li ci des yëpp da koy jël pour mbëri ba pari bu fekkee nag euh, ci arène bi la bu dee si arène samp moom façon la tamit moom it. tey nga bëgg am komba dañ lay samp yaa ngi dégg buñ la si sampee moom kooku seeku ñoo yow ay daanook daan dañ lay samp ngay am ay combat rek nañ lay daan chaque jour mais dañ lay samp da am ay combat waaw saison bi moom mën nga si am 4 komba ba 5 yaa ngi dégg buñ la si sampee nga am 4 wala 5 yaa xam dañ lay daan wala daanuñ la yaa ngi dégg bu fekkee ne da bëgg ñu samp la nga nga ngay daan. ngay daan laa la wax de kooku moom it dañ lay samp buñ la sampee cinq combat la cinq combat lañ lay assuréel ci samp bi man laa la wax de cinq laa lay assuréel cinq yooyu benn bi dañ la koy daan kaadi yaa koy daan waaw man moom loolu laay sampee waaw. Euh, bu làmb ji actuellement ni nga gisee yan mbër nga jàpp ni moom samp nañ leen te leen. waaw ji. ku ci mel ni Modou Lo dañ ko samp hmm. Modou Lo dañ ko samp te caaxaan simpiwu ko Modou Lo dañ ko samp caaxaan simpiwu ko Balla Gaye dañ koo samp mais samp boobu moom mën naa dañ bu Balla Gaye mën naa dañ yomb na jafewul lan moo tax nga ni Modou Lo mën na deñ mënul deñ Balla Gaye mën na deñ kon sëñ bi mbaa du yow da ngaa am koo ci ñaanal. déedéet wallaay sax man raar ay mbëri mbapat laay ëpp lu may sampal parce que ñoom ñoom man village laay ëpp lu may nekk dafa sampalee ay mbër ñu ma fay fekk. yaa ngi dégg ñoom mbër bëruma si lu may jëflante ñoom mais dama xam mbëru samp te dafa ñu ma ñoo xam ne ay kilifa lañ. ay sëriñ lañ nekk fii si réew mi ñu leen di samp sant lool foofu lañuy ñëw man ma samp ma samp leen. Balla Gaye ak Modou Lo samp la dañ ko samp si nag bu ñuul. Eumeu Sène oh. si nag bu ñuul Modou Lo nag bu soko kii bu sokolaa. wala da dañ laa liggéeyloo wala da toog rek euh, gis ko ci say Euh, xam nga bii maanaam man mi dama nekk ni ko xamante ne daanaka du ne lépp rek laay faral di wax mais bëri na tey ji ñu may fekk fële ci sama village ba ay kilifa yoo xam nañ leen sant liggéey fii ñu ñëw fa fekk ma dama léegi léegi ma jël defaral leen jox leen ñu ñëw yaa ngi dégg moo tax fii lu ma la fi wax rek jàpp ko waaw lu ma liggéey la man lu ma liggéey rek xam naa ko. te mën naa ne lii nii nii nii laa ko liggéeyee. xam nga saison wu làmb kañ lay ubbi kañ lay commencé waat làmb ji demaat ci seen activité comme ni mu meloon. làmb ji. Hmm. làmb ji kooku mënuguma see dugg parce que dama nekk ci mbir moo xamante ni moo xaw a ëpp farata làmb kum jamono ci waaw moo tax moom du ma si nekk di si. waaw no même bu dul politique bi sax dama nekk si si askan wi.